yaakaar ne mën ngeen ci jëlee ndam. waaw euh, je pense que comme ni nga ko waxee le 12 euh, décembre incha allah mooy mardi prochain. Euh, am na audience bu war a am tribunal d'instance bu dakaar ndaxte comme ni ngeen ko suivre yéen ñëpp le 17 novembre bi audience bi amee cour suprême nga xam ni agence judiciaire de l'État ak ay avocats yi mu àndal ñoom ñoo defoon un pourvoi. Euh, contre la décision ba nga xam ni tribunal bu Ziguinchor moo ko jëloon. wax ni Ousmane Sonko nuñ ko dindee ci liste électorale yi tegawul ak ci yoon. donc ba pare digal administration daal que les pouvoirs centraux. du ministère de l'intérieur ñu intégrer le président Ousmane Sonko sur les listes électorales. Euh, loolu bi mu amee gis ngeen li fi jot xew yëpp mooy c'est-à-dire obstruction yi fi joto lu toll na administration ou bien état du Sénégal muy jalgati yoon di bañ a jëfee li yoon dogal euh, loolu bi mu amee ñu def euh, pour en cassation bi ñu ñëwee ci devant le juge ou bien devant le président de la Cour suprême et ses conseils ñu ni effectivement li tribunal jigéen soor wax mooy le juge bi wax ni effectivement euh, le juge de Ziguinchor moom moo am sañ-sañ. moom mooy mhm. compétence rek sur la compétence. Mhm. loolu moom dëggal na ko. waaw waaw loolu dëggal na ko donc les juges foofu ñun ñoo fa am raison parce que ñoom mhm. dañu ne woon le tribunal de Ziguinchor amul compétence. ndaxte wax ay wax yu kenn naan Ousmane fii la Dakar la dëkk ak yooyu alors que ñëpp xam nañu si wàllu inscription. wala si wàllu contentieux électoral mhm. ce lieu d'inscription moom mooy déterminer compétence bi mhm. loolu amul lam-lamee mhm. mais bi ñu demee le juge la cour suprême jox nañu dëgg si loolu mais cour suprême bi mu xoolee beneen moyen bi mooy sur la recevabilité de la procédure parce que ñoom dañu ni procédure bi euh, ñun dañ ko yéex a dugal en fait parce que suñu la rajee tu as cinq jours pour nga def recours mais ñoom dañu ni procédure bi ñun dañ ko dugal après cinq jours bi mu passé mais nag xam nga suñ la rajee loi bi dafa am lu leer lu mu wax dafa ni suñ la rajee dañ la war a dañ la ko war a notifier mhm. cest dañ la ko war a jox yow mhm. ba nga xam ni jot nga ko décision bi nga bi ñu jël yow jot nga ko loi mhm. bi loolu la wax mais loolu bu mu amee bi ñu bi ñu ñu jàppee ni ñoom bu ñu waxee ni ñoom dañoo rajee la président Ousmane Sonko sur les listes électorales amul benn këyit buy firndeel ni le président Ousmane ko jot na ko parce que en tout cas moom jotul dara si lenn rek la xamee ni moom dañ ko rajee suble les listes mooy bi mandataire am demee di jëlee des fiches électorales ñu yeewu suba euh, le journal Yoor-Yoor mhm. publié mooy l'acte de signification boo xam ne huissier bi moo ko def mhm. te signification ak notification dafa am une différence totale bu bu bëree quoi est-ce que mhm. donc règle yëpp léegi nag juge bi bu mu xoolee loolu gis ni effectivement avocat Ousmane Sonko ak aussi le président Ousmane ko ñoo nekk si dëgg ça veut dire que règle ya nga xam ne moo jëm si wàllu notification respecté wuñ ko léegi nag cour suprême weddiwul juge bi mais dafa ni ko euh, lu mu tudd sax sa. fi nga basé wu pour jël décision waaw bi voilà effectivement. àndu si donc moom lu muy diingat si décision bi rek. mooy motivation bi liy diingat. donc je pense que. Euh, l'audience du 12 décembre incha allah. mais bu ne motivation bi rek parce que motivation bi moom moo indi décision. boobu noonu moo indi décision la. voilà non waaw moo tax ma ni la donc motivation je pense que suñu demee incha allah le 12. kon moom aussi y a un côté de légèreté boo xam ne mën nañ ko. waaw pas pas côté de légèreté xam nga aussi d'accord juge la il a pris sa décision. moom ni mu gisee décision bi ak ni mu gisee motif yi ni mu ko war a motiver noonu la ko motiver. d'accord donc mën nañu jàpp nag. Mhm. peut-être y a une insuffisance de motivation tout ça mais en tout état je pense que suñu demoon demee tey incha allah. Mhm. Euh, le 12 décembre si kanamu juge bi je pense que juge le ce juge là avec l'expérience bi ñu ko xamal est-ce que vous comprenez. ak mhm. jaar-jaaram. yaakaar nañu tamit vraiment dina wax lu yoon. parce que si dossier bi képp ku ci wax yoon je pense que Ousmane moom moo am dëgg.